dal leen ak AGT news a raw. AGT news. dafa am ay kàddu yoo xam ne Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati tey ci conférence de presse bi mu doon amal ci conférence des leaders kàddu yooyu lañ bëgg leeral jëmale ko ci mbirum waa France. yeneen réew yi nga xam ni ñu ngi nekk ci àdduna bi te war a mën a nekk ay partenaires Sénégal moom nag dafa am lu mu jiital ci ay kàddoom mooy que ni. ñun Sénégal fii opposition bi fi daal di nekk dafa am benn image boo xam ni président Macky Sall ak ñoñam dañ ko présenté waa extérieur ñu jàppee ko waa opposition bi alors ko loolu dara mosu cee am comme si dañoo nekk opposition bu irresponsable boo xam ne violence kese moom lay dundee opposition boo xam ne itam daa bañ bépp collaboration buy am ak waa France ak képp koo xam ni da ngay jóge extérieur te bëgg itam nekk ak waa Russie lii mooy li nga xam ni dal dinañ koy gëmloo occidentaux yi président Ousmane Sonko indi ci ay leeral mu ne ñun amuñu benn problème boo xam ni dañ koy am ak waa France amuñu itam benn comportement boo xam ni comportement bu violent la dañoo nekk seulement ay ndaw ci suñu ay réew di dal di xeex lépp loo xam ni daf di guerre di xeex lépp loo xam ni wax lu dul dëgg la di xeex itam détournement d'argent ak bépp investissement bu amalul njëriñ suñu ay réew di xeex itam bépp xeetu partenariat boo xam ni suñu ay réew duñ ci gagné dara au contraire dañ ciy perte lu bëree bëri ci suñu ay koppar ci suñu ay ressources naturelles Ousmane Sonko ne yéen occidentaux yi français yi ak ñeneen ñi nga xam ne yéen nekk bëgg liggéey ak Sénégal gis nañ seen ab doxalin jamono ji nekk na doxalin boo xam ne ngi dalal xel yi ndànk-ndànk ndax gis nañ ca ña nga xam ne ñoo di waa parlement bu France yenn député yi seen vidéo bi circulé ci réseaux sociaux yi di wane ne am na ay inquiétudes yu ñu war a mën a am ci suñu réew mi di Sénégal ndax président Macky Sall ni mu koy gérer waaye itam partenariat yi war a am suñu diggante nan la war mën a nekkee ci am njëriñ européens yi itam dal ci am njëriñ Ousmane Sonko dem na sax bay fàttali ay kaddu yoo xam ne ma ngi ko bindoon ci livre am bu am solo boobu nga xam ni moo di solution pour un Sénégal meilleur boobule ñu ciy wax naka lañ war a mën a comporter woo ñun ak européens yi européens yi itam nan lañ ñu war a jàppee ngir delloo ñu suñu fulla suñu fayda waaye itam considération bi nga xam ni war nañ koo jox suñu ay réew ci Sénégal gii ba ci Afrique gi yëpp loole Ousmane Sonko dikkaat na ci mu ne nag mbir mi nekkul ni nga xam ni noonee lañ ko expliquer réew réewum tubaab yi comme si ñun dañoo nekk nit yoo xam ne dañoo bañ nit ñu weex ñi déedéet loolu mësul am dafa am lu ñuy woowee les pratiques d'état ni nga xam ni état de la France noonu lay jëflante ak état du Sénégal loolu moo ñu neexul jëflante boo xam ne état de la France moo ci dal di am ab njëriñ moo ciy gis ay bénéfices di ko ci daal di am état du Sénégal di am ay désespoir di am itam ay retombées yoo xam ne yu doy waar la te duñ ci am benn njëriñ bu ñuy amal suñu population lii mooy li nga xam ne Ousmane Sonko Sonko daal dina koy wax mu ne nag amuñu benn problème ak france yi ndax am nañ ay xaritu tubaab am nañ ay xarit yoo xam ne ña nga dëkk foofu am itam ñoo xam ne ñi ngi fii ci Sénégal ñuy jëflante ak ñoom saa su nekk waaye comportement bi am vis-à-vis des deux états loolu moo ñu neexul loolu mooy li nga xam ni faw ñu xoolaat ko ndax kat partenariat buy am day fekk yow mi nga xam ne yaay jóge fee di ñëw nga am loo ciy gañe mais man mi ngay fekk si itam maam lu ma ciy gañe dem na sax bay fàttali traite négrière na mu demee woon bay fàttali itam colonisation jamono ni fi amee woon suñu am réew Sénégal Sénégal ak itam Afrique yëpp mu ne dañ daan indi ay pakoti ay seetu ay mbir yoo xam ne amalul benn njëriñ sénégalais yi amulul benn njëriñ africain yi tout simplement da leen doon yéem ay mëq doom da leen ko daal di proposé ñu leen di jox ay jaam ñuy yóbbu di jaayi ci Amérique ñu fa daan liggéey di am ay métit yu dul jeex ñu leen di rey ci yoon bi da leen def lu métti métti tey ñu dem a dem a dem ba loolu jeex colonisation ñëw ñu jël suñu ay richesse suñu ay ressources naturelles di jël di yóbbu seen ay réew noot ñu nooteel gu ñu domination politique et culturel ba ñu dem ba ñun ñu daal di adapté wu ca ñoom na nga xam ni noonu la ñuy dundee loolu moo continuer ba ñu am suñu ay indépendance loolu moo continuer après indépendance ñi doon wax naan dañuy def sécession avec la France wala bokk dañuy nekk ba tey di ci France ñun nag au ñu def comme Guinée na mu defoon dañoo jël dépendance ci France ba tey continuer ñu ñuy noot di am ay relation yu ñu naan économique ak ñun fekk du benn relation économique dafa nekk relation nooteel jël suñu ay koppar suñu ay ressources développé ñun ñuy gën a am ay jafe-jafe lii mooy li nga xam ne Ousmane Sonko moom lay wax ne opposition bu Sénégal bii actuelle moom lay daal di xeex loolu ñuy xeex nag du Ousmane Sonko kese moo koy xeex dafa nekk toute la population sénégalaise toute l'Afrique waaye li ñu manqué woon mooy am ay leader yu ñëw porté boobule combat am fulla fayda fit bi itam ngir porte yooyu le message ndax bëri na fi ñu ko daan yëkkati éliminé nañ leen kenn gisatu leen ku weddi laajal Thomas Sankara ku weddi laajal Kadhafi lii mooy li nga xam ne moo am ci suñu ay réew ba tax na Ousmane Sonko mu ne tubaab yi ni ñu nekkee ci jàmm am seen ay infrastructure yu jaar yoon nekk di dund bonheur am prospérité am wirgu yaram am ay hôpitaux yu baax nekk dans un cadre de vie boo xam ne c'est extraordinaire loolee la ñu bëggal ñun itam suñu ay réew Sénégal ak Afrique loole la ñu bëgg di dund ñun doomi Afrique yi loolee la ñu bëgg saa su nekk ñu ci yeewu ñun itam ndax kat adduna bii kenn moomu fi kenn te lépp loo xam ne Europe am na ko Afrique mën naa am lu ko raw ndax am na ressource naturelle bi am ressource humaine bi maanaam ressource naturelle mooy richesse yi xéewal gi nga xam ne yàlla defal nañu ko ci suñu biir suuf gi muy pétrole muy gaz muy or muy zircon muy bépp xeetu matière première boo xam ne mën naa jëriñ sénégalais yi waaye itam am nañ ñu ko mën a liggéey muy une population jeune et active population boo xam ne ay ndaw lañ yor seen kattan waaye lenn moo ñu manqué ñu am ay politique de développement yu ñuy teg sur place ngir sénégalais yi africains yi mën cee gis seen bopp politique de développement yooyu moom mooy waral accord de partenariat yi exploiter sa pétrole mënoo exploiter sa gaz kaay ma dimbali la si dimbal goo xam ne day ñëw indi ay société ay multinationaux yoo xam ne ñu ñooy daan exploiter lu ni mel suñ paree ne la waaw da ngay bu dee cent franc la nga jël ñaar dërëm yi bàyyi ma ak juróom-ñeenti dërëm yi loolee mooy li nga xam ne moom la ñuy dund ci suñu ay réew Ousmane Sonko nag ne loolu faw ñu changer ko il faut ñu dem a dem a dem ba bu ngeen jëlee fukk ñu jël fukk wala bu ñu jëlee ñun fukk ak juróom-ñaar ngeen jël ñett yi nga xam ni moom moo ciy daal di des ndax koppar gi suñu ay koppar la alal ji ñun ñoo ko moom yéen moomu leen ko amul kenn nag ko xam ne war naa mën a jugee foofee ci réewi tubaab yi ñëw fii di fi imposer ay modèle économique ak itam ñun lañ war a dundee Ousmane Sonko ne dañoo war a dem ñun itam Afrique ci suñu autonomie maanaam moom suñu bopp loolu la ñuy woowee souveraineté am souveraineté alimentaire am souveraineté économique am souveraineté sax côté ni nga xam ne noonu la ñuy concevoir ñun suñu ab politique ak suñu éducation ba si sax suñu santé ak yu ni mel mu ne nag kenn weddiwul ne dañoo nekk ci mondialisation mondialisation boo ko déggee mooy adduna bi ñëpp a duggalante ñëppay demalante ñëppay ñëwalante waaye day fekk ci nga am sa fulla ak sa fayda day fekk sa kër nga matal fa li nga doon day fekk sa njaboot itam nga teg leen dans de très bon condition bu ko defee boo demee di fekk ci njabootu keneen am noo fay demee am itam nuñ lay respecté waaye mënoo nekk ci saam réew defoo fa dara lu baax dundoo fa dara loo xam ni luy jëriñ sa population la bëgg taxaw fële naan ñeneen ne ñoo ëpp jàmm ñoo ëpp bonne gouvernance fekk ne yooyaay ay population am ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne xamuñ fu ñu koy waxee xamuñ fu ñu koy jooyee lii moo war a changer ci suñu am réew te pour mu am nag il nous faut des leaders forts des leaders yoo xam ne ñoom fulla ak fayda la ñuy doon des leaders yoo xam ni dañuy xam fan lañu jëm xam fi ñuy teg seen ab tànk ngir ëllëg ñu daal di mën a am lu ñu jëriñ seen ab Sénégal ay nag mu jeexalee ci ne bëri na fi ay mbir yoo xam ne ñoom ñi ngi koy gëmloo tubaab yi te dara waralu ko lu dul bëgg moo tax ñuy jéem a gëmloo tubaab yi que ni suñu Sénégal gii am réew la boo xam ne opposition bi fi nekk opposition bu violente la opposition bu indi ay jafe ci réew mi la opposition la boo xam ne dafay teg ay coono sénégalais yi lii nag moo tax Ousmane Sonko kàddu yi mu yëkkati ñu daal di ciy def ab jàngat taxaw seetlu gis nga suñ Sénégal gii buñ bëggee mu dem faw ñu am fulla ak fayda suñ Sénégal gii buñ bëggee mu changer faw ñu am taxawaay bu mucc ayib bu ñuy am ci suñu doxalin vis-à-vis de partenaires qui viennent l'extérieur jël li nga xam ni moom lañu ñu daal di moom daal di koy jëriñoo ba ñun du ñu am leneen loo xam ni dañ ko ciy daal di am suñu ay réew foofu ñu daal di koy tëggaat defaraat ko cuubaat ko bu baax a baax ngir ëllëg ñun ñëpp ñu mën a nekk dans de très bonnes conditions de vie ndax kat suñu Sénégal gi mën nañ koo defar réew la moo xam ne am na ay richesse waaye itam am na barke ndax ñoom maam borom Touba ñoom Sidi Hadji Malick Sy ñoom Baye Niass ñoom Seydina Limamou Laye kilifa yu bëree bëri yoo xam ne daal di nañ jaar ci suñu réew mi lee ba tax na barke googu bu ñu liggéeyee rek ànd ci ak dëgg dañu ci dal di jëriñu amul lenn loo xam ne am réew mën na koo am lu ëpp jàmm ak salaam waaye jàmm ak salaam dañ koy cultiver nan lañ koy cultiver mooy ñu mettre dans de très condition conditions ñi nga xam ne moom la ñu daal di dëkkal mettre dans de très bonnes conditions la population sénégalaise waaye lépp loo xam ne itam ñoo ko moom ñu daal di leen koy jox Sénégal réew la moo xam ne naqariwut a defar te population bi bés bu ñu la gisee ngay liggéey ñu daal di lay jàppale waaye nag faw mentalité yi daal di changer faw gis-gis yi itam daal di soppeeku ndax ñoo toog di jàpp ne tubaab yi saa su ne ñoo ñu war a jiite ñoo ñu war a tegtal ñoo ñu war a wan yoon ñoo ñu war a wax itam naka la ñuy gérer suñu ay réew naka ñuy defee suñu ay politique de développement déedéet ñun ñoo xam suñu ay réew ñoo war a saytu lépp loo xam ne dafay méngoo ak suñu développement jëmale ko nag ci njàngameek njàngale mi ci wetu santé wàllum politique de développement yi ñuy teg waaye itam surtout ci éthique ak déontologie ci wàll bi nga xam ne moo la naka la ñuy yoree suñu am réew ndax kat fekkente ne dañ laa dénk koppari réew mi nga ciy def lu la neex di luubal ak def ay investissement yu amul benn njëriñ amul benn sens sénégalais duñ ci mës a jëriñu du ñu mës a gis lenn ci li nga xam ni moom ngay daal di liggéey ndax saa ne ci jafe-jafe la ñuy ne saasu ne ay métit la ñuy daal di dund te kenn du xam fan la ñuy jëlee ay koppar yoo xam ne mën naa daal di faj yooyu la soxla koppar yi nga xam ne nag ñun ñoo ko moom ñu ko defal ci lu ñuy jëriñ ëllëg leneen luñ ci mënti daal di def amul benn sens amul benn aboutissement Sénégal lenn kese la ñu soxla mooy dund gi daal di yomb dund gi daal di neex Sénégal lenn la ñu soxla ku feebar daal di faju waaye itam ku am sab soxla daal di koy mën a faj am des voies et moyens yoo xam ni gune yi dañ ciy mën a jaar ngir mën a am liggéey bu jaar yoon lii la ñu soxla de et pourtant c'est tellement facile ce n'est pas difficile à faire il suffit tout simplement ñu am ay njiit yoo xam ni dañuy def liggéey bu am solo ñoom ay njiit yoo xam ne dañuy désintéressé wu ci koppari réew mi il ñoo am ay njiit yoo xam ni képp kuy liggéey rek ñu encouragé la waaye képp kuy luubal itam ñu ne la ràpp ci kaso bi jël ñi nga xam ne ñooy les personnes qu'il faut teg leen à la place qu'il faut buñ ko defee rek dinañ jëm kanam te nañu respecté wante xam na ñun ñëpp ay sénégalais lañ amul président de la république amul Ousmane Sonko amul kenn ñun ñëpp nous sommes des sénégalais donc cër bi nga xam ni jox nañ ko Ousmane Sonko ñu bëri joxuñu ko président Macky Sall am lu ko waral c'est parce que tout simplement le discours que porte Ousmane Sonko est un discours républicain dafa nekk discours boo xam ne Sénégalais dañ ciy gis seen bopp di ci yëg seen bopp di sentir ne ñu ngi ci am réew moo xam ni mën nañoo daal di am yaakaar ci kii ñu ko bëgg daal di teg ci yàpp loxoom nekk itam ci réew moo xam ne ñëpp a yàkkamti ndax développement moom nekkut luy xaar te réew yëpp ñu ngi dem ñun Sénégal ñoo ci des nañ ñu tegal donc ay politique de développement yoo xam ni dañ ciy gis suñu bopp bañ a topp adduna bi yeneen réew yi nga xam ne i intérêt bopp dong moo leen yitteel ndax ku fi ñëw di indi ay accord de partenariat li muy sóor nekkul yow li nga xam ne moom la lay defar waaye lan la mën a yóbbul am réewam laata nag ñuy yóbbu quoi que ce soit dañu am fulla te téye suñu ay mbir ba képp koo xam ne sax da ngay ñëw ñu koy bokkante buñ la ciy compal itam du nekk loo xam ne ëllëg day lor sénégalais yi waaye la plupart de nos richesses dinañ ko réinvestir ci suñu am réew bi di Sénégal bu ko defee muy man muy yow muy Macky Sall muy Ousmane Sonko ñu daal di ci am ab njëriñ boo xam ni suñuy sëtaati sët sax dañ ciy dal di barkeel AGT News